Cheikh dama laaj ci sa abi si incendie boo amoon si hôpital euh, Abdou Maam Abdou Aziz bu Tivaouane bi onze bébé yu dee. waaw euh, avant tout maa leen di nuyu di leen baax a baax euh, ni ñu ko gisee mooy ñi nga xam si ne ñoo si am ay mortel ñu leen di masawu ñu nga xamal na métti na di bokk ak ñoom métit bi leneen li si tegu mooy. bu dee si wàllu sàggante am na si sàggante bi nag yaakaar naa mi ngi commencé si état parce que en tant que hôpital donte mën na amee si mën na amee si côté bu nekk mais en tant que hôpital war nañ see jëm jël jumtuwaay yëpp ba lu mel noonu du ci am parce que tey jii bu ñu defoon milliards yi ñuy jël ni di si defar ay BRT di si defar stade di si defar leneen rek leneen. mun ko jëloon parce que bala nga ne naam da nga fay nekk comprendre nga kon da am na loo xam si ni seen sàggante la am na yeneen hôpitaux yoo xam si sax tey jii bu fekkoon dem nga fa bëgg a def ay éco si hôpital yoo xam ne man xam naa leen doo ko doo ko fa am da ngay déplacer demaat ay kilomètres i kilomètres kon léegi milliards yooyu ñuy investir si wàllu infrastructure rek yeneen ak yeneen buñ ko defoon si wàllu faj meeg yooyu amaana loolu mën naa bañ a am Euh, Seydina mom Ndiaye yo no khalaté moy nakar bu am fini 11 bébé yu dé ci hôpital euh, Mame Aziz bi tiwawon tiwawon euh, man ci suba sax la koy door gis ndax man tout temps man ci net bi ci suba la ko gis gis incendie bi mais par exemple quoi sama khalat mais japp na ni gaay lolou d'une part gaay sétane nañ ndax crèche bi war na mun am ay gardien ak lak bo par rapport bi mi am ak gaay fa lañ nek man lool lay lacc ba pare ndax tay itam amna lo loo tamit sétan la ci benn côté quoi ndax lum déré déré dé warna war am gardien bi muy doora a ak bi muy juk hôpital bi warna na am ay incenteur débutement bi ba à la fin bi muy doora japp gaay war nañ fa mëna nek même bu féké benn 15 minutes sax war nañ ko mëna fay man lool la gis. léegi yow ban solution le état war a wala pour.

avant ñu may laal beneen affaire la mooy loolu man daal li ma gis daal état jéem a def changement ñu xool hôpital naka lañ ko mën a gérer ba yii ne bañ fee am mooy loolu man loolu laa gis. incendie bi de ñun bi ñu xëyee suba lañ ko déglu tey ji ci information ci rajo yi waaye wax dëgg yàlla daal metti na métti na daal la kalamu yàlla parce que ñun ñëpp ay jullit lañu ñun ñëpp ay yaay lañu ñun ñëpp ay jigéen lañu waaw te si ñi ñi mu dal ñun ñoo leen ñun ñoo leen ñun ñoo leen jur kon wax dëgg yàlla métti na. ñi ngi ñaan yàlla nag yàlla na yam daal ci kattanu borom bi tabarkalla mais daal métti na trop trop trop trop trop yàlla na xam ne ne métti na ndax jii ku ko dégg rek wax dëgg yàlla yaa koy métti lu daal waaw ngi koy métti lu jéem a personnel bi rek ñu jéem leen a renforcer rek ak jéem a waxtaan ñu soit prudent ci seen liggéey parce que loolu la loolu lañ fi am daal ñu gën a taxawu seen liggéey gën cee farlu daal waaw gën ci farlu gën ci taxawu waaw personnel bi soit mu am ñuy fanan wala ñu am ñuy monter garde wala nangam mais ñu gën taxaw gën surveiller xalé yi ci crèche dal taxaw len ma saw ñi nga xam ni ñom ñoy wajuru xalé yoyu euh, di wax yalla na may len xolu muñ ci wutalat len lenen euh, di ko métti lu baax baax baax nak ndax euh, dekk bi lu ci xew fan yi métti na lor dafa dañ ko wara defal national. dans tous les secteurs nag secteur boo laal instant bi mu dafa sooxe muy ci ministre de l' intérieur di ministre de l' éducation di ministre de la santé ñetti ministères yooyu wax dëgg yàlla booba léegi seen secteur bi dara doxu ci kii yi ñu ngi grève te bàyyi enseignants yi grève te bàyyi médecins yi aussi ñu ngi grève te bàyyi kon bu leneen yu mel ni ñëwee dolli ko waat ko kon dama yaakaar ne ñoom li nga xam ne ni budget yi nga xam ne nii ñoo ngi leen koy votel dama yaakaar xaalis boobu fan lañ koy dugal ndax da ngay dugg parce que ñun ñi ngay gis ñun ñëpp ñun ñëpp ci àll bi leen dëkk fi nu dëkk da dem foo xam ne nii pour nga am accès ci ci benn district sanitaire dong day jafe da nga fay dem guddi ñu ne la médecin bi nekku fi wala da nga fay dem nga fekk fa kenn nit kon secteur boobu war nañ koo renforcer waat ak aussi tamit ni ñuy jëlee ñi nga xam ne noonu la ñuy jëlee personnel bi ñu xoolaat personnel bi ñuy jël parce que boo xoolee ci école dañuy xool école de formation yi da ngay gis santé bi dafa mel ni leen jëm kon dama yaakaar ne tamit ñi ne nii leen di jël ñi leen teg foofu est-ce wala boog bu fekkee ne ñoom dañoo qualifié aussi benn euh, personnel ba la ñuy jël ku qualifié ko xam ne jéem andi fa ñeneen ñoo xam ne nii xañ na ñoom diplôme yi war a am amuñu ko kon daal dama yaakaar ne lii nii ministère bi war na cee wax président aussi war na cee wax mu jël ay sanctions yoo xam ne nii yu sévère la képp koo xam ne ni laale nga ci ñu def ñu sanctionné ba nga xam ne ëllëg képp ku jox service di nga ko mën a respecté nga euh, nga doxal ni nga ko war a doxalee bu ko defee ñun ñëpp ñu am jàmm ndax instant bi dañuy wax santé bi dafa santé bi lii dafa seen kaw waaye sécurité ci boppam la ñuy wax problème sécurité total la nañu am parce que ñu ngi fiy rey ay nit ñi ñaa ngi reyeen seen biir loolu lépp mën a am ci problème rek kon ñi ngi ñaan président bi nga xam ne nii moo nekk président de tous les génn wax ak askan wi loolu ñu ngi koy koy ñaan bu baax waaw wasalaam damay massawu parents yi nga xam ne ñooy victime yi mooy parents victime nga xam ne ñoom ñoo am si euh, incendie bi am Tivaouane di wax nag man Tivaouane laa dëkk côté hôpital boobu laa dëkkee maa ngi dëkk Tivaouane kër Cheikh Madouba mais néglisance bi nga xam ne moom moo am si hôpital yi dañ see war a wax parce que trop c'est trop mën naa ne lu mel nii amoon na su ma juumul le vingt cinq le vingt cinq avril euh, deux mille vingt et un mooy bi quatre bébé yi laqee lu mel nii la woon bii paa ñu waxaat bii nii mën naa da koo triplé parce que su ñu nee onze bébé ñoo fa ñàkk seen bakkan. mu amaat le 25 mai 2022 Amad sa Tivaouane que mën naa ni même pas un an Miri yi faire répété wu c'est trop c'est trop mbirum hôpital yi dañ see war a wax gi nga xale moomin la xale moominu yàlla la parce que waruñu fa toog bay am ben une minute bu ñuy absenté newuñu sa salle ba bañ naan bi mbir mi di am tel na am mbir mi ma ngi am vers ay euh, ay timis bañ dem ba ay 23 heures muy dogo siw lolou du parce que su fa fekkone am na ñuy garde ño xam dañuy nekk fofu ci salle bi mën naa ne mbir mi du yegg fii du ñu wax ay onze bakkan wala nangam ak nangam négligence bi am si hôpital yi nag dafa bari comme ni ko sama sama sama copain bi waxee nee na négligence dafa bari si hôpital man xam naa si dara parce que man damay dem si hôpital damay dem si milieu hôpital démb rek moo si mujj ki démboo njaay rek a si mujj bërki démboo njaay yem naa si benn soc mbirum hôpital la nag comme que dañoo laaj si mbirum hôpital lépp mbirum hôpital la yem si benn soc bu amoon si bi ñii bi ñu leen di évacuer maire bi nga xam ne si victime la bokk dafa jël sama téléphone la doon wootee doom ji bi mu woo ma ne ko ñang ngoogu di leen jàllale mais xamaguñ fan lañ jëm exact léegi ñu ko xamee dinaa la woo wax leen maire bi bi ma waataatee doom ji nee neen dem nañ si ñetti hôpital fu ñu dem ñun leen amuñu place te mun naa ne cas d'urgence dafa am nit nekk si urgence ñëw ñu naan la nekk yor métti ñëw ñu naan la fii fees na nga bëgg a rangaat si embouteillage bi di dem loolu dañ see war a jóg mbirum hôpital daal feebar la feebar la même pas deux mois suñ jugee Louga dem kaolax tay tiawan barki dem Linguère la won dafa bari dafa bari dafa bari président nak warna naa jug wax ci parce que lu bari lu upp tour lu upp tour ben bakkan rek dafa for rawatin na nak ñuni 11 bébé 11 bébé dafa bari te wajuru bébé yi nga xamni ni ñoom ñoo sonu ëmb seeni dom 9 mois 9 mois nga xamni seeni bakkan sax xajon na si amna ño xamni ci si bébé yi nga xamni ño ñoo génn àdduna mooy bébé yi am ko xamni biko yaayam di am la génn aduna mu am benn boobu leer na ma ne seen waa kër ñu ngi doon wax naan kii de la ñuy xoolee yaayam mu fekk yaayam bërki dem si lan si ab laq si lan si incendie boo xam ne dañ ni moom moo ko waral suñu hôpitaux yi dañoo war dañ see war a jug parce que lii daal dafa métti. bon li ma li ma siy dolli nag li ma siy dolli lenn rek la mën naa ni ki nga xam ne mooy euh, Serigne Mbaye Sy Mansour di xalifa général des Tidianes waxoon na ko 2018. 2018 toog nañ ministre bi toog Diouf Sarr. su ma jubul maire Tivaouane ki newoon ancien maire Tivaouane bi toog muy jàng si meng kilifa yëpp toog mu wax leen mu mun leen carrément jug leen si suñu hôpital bi muy hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh bi jug leen si parce que hôpital bi niveau 3 niveau bu mag la mais li nga xam ne moo warloog hôpital ba néew fa muy côté matériel muy côté ay ay ay ay ay ay docteur wala côté nangam ak nangam amu fa jug leen si nag bala muy wees sinon dinañ fi dajewaat jugee si si beneen anam anam bi mu doon wax mooy anam bi kon gisoon na négligence bi moo bari nañ ñu dimbali hôpital moo njëkk hôpital moo njëkk nañ ñu dimbali ngir yàlla si hôpital yi parce que wér gi yaram ku ko amul waroo waroo mënoo def dara rawatina nag rawatina ay moomin ay moominu yàlla ay xale ay xale yoo xam ne xamuñu dara chaque jour xalé yi ñoy dé chaque jour xalé yi metti na dimbal leen ñu ngir yalla Macky Sall dimbali ñu té yalla tax wa salam waaw man bala ma wax damay massaw way juri nga xamna ñoo ñak seen doom parce que ñak doom dafa metti nga am sa doom hmm xamoo nak benn bobu la la yalla may ci sa adina xamoo nak yalla dina la ko mayat du deug kon ñooñu maa ngi leen di masaw bu hmm di leen ñaanal seen doom yi hmm? manam yalla may len xolu muñ dal waaw lima ma wax nak mom len la hôpital mom hein ah, li fi am dafa metti parce que Sénégal dañu wara dépasser ku amul xaliss do faju dañu wara dépasser lolu nit bu démé yóbbu malaat war nañ la faj ba nga wër ñu dogo wax waxi xaliss mais Sénégal da ngay dem ci hôpital yi amo xaliss yóbbu sa malaat ñu naan lay kan moko jël en charge dañuy jam nit sax ñu war ko sauver ñu naan kan moko wara jël en charge yooyu dañ ko wara a ci hôpital yi dal waaw ñu ngi ñaan dal Macky Sall mu jëlat mu jëlat matuwaayam dal ci paju bi waaw parce que ñun war nañ dépassé sax feebar di dem Europe di di di faju dal waaw parce que fi lepp amna fi dal waaw ñi sant ñëpp di nuyu ñëpp loolu luñ ci xalaat moy dafa metti metti na trop parce que nit bakan bakan yëpp a amul bakan bi ñëpp noy la def mais man damay laaj man Macky Sall laa bëgg laaj lan moo tax dégâts yi am ci hôpital yi fii Kaolack Linguère Kaolack jëluñu fi benn bébé def ko ci ñu ne dafa faatu faatu ñu def ko si keesu madaar mais keesu madaar nan lañ ci defee nit tamit même ni même bu dundul tamit nañu respecté nit ñi ñoom seen doom yi ñu ngi Europe di faju ci ay hôpital di fa faju bu ñu feebaree bopp buy metti rek dañuy jël seen passeport dem seen yoon ñun mënuñu ko ñëpp mënuñoo fajoo Europe dëgg la ñëpp mënuñoo judoo Europe dëgg la ku sañon da ngay am moyen sa dom di judo fu bax mais hôpital yi nga xam ñun mom lañ am war fa mëna judo nañ ko respecter parce que man ñun dañoo yew fajar tel dem vote ji mais ku yak say naw dem di vote ji ñew nela la nela yaw la yaw ya dem def campagne dug ci dëkk yi dëkk yu amul euh, hôpital yi ne dina dinaa leen defal nangam nangam da nga faa da ngay dem nga motaliko ba paré recrutement yi ñi jël ñu xam dañu am yërmande fi ñu recruter xanaa ñi ñuy recruter ñoom dañ leen war di essayer di leen dompat ñu xol ndax ay nit lañ wala du ay ay jinn lañ parce que dama xamni ni nit nit buy dund yow nga nek jigen te ñom jigen ñoo ci ëpp ngeen baal ma ñoom ñoo ci ëpp jigen moy ñew sa morom jigen ëmb ba 10 ñew di matu mu metti trop ga kay wax lula neex nan ko ay yaa fi defon mi neex ak mais mom moom waajuram bu jigen mom ki wax lool mom biñ ko defon non ba négi ko mu faatu est ce que mom dana judd est ce que dana judd du meuna judd parce que dañu wara a respecter nit ñi hôpital bi fa ñëwee accueillir bi nit dina fièvre sax ñëw ci hôpital ga gën ko lo manam da ngay wax ak mom rek mu gëna fièvre mom dé sax lay bëgg dé wala mom du bëgg dem hôpital parce que lan xam na ne bu fa demee accueil bi rek da ngay ñëw fekk fa ñu taxaw ñi di maquillage ñi di sinap ñi na ma damay ndéki médecin bu ñëwé xol ba kenn tejaat ko man mi rek dunduna lool xol kenn tejaat bureau bi dem waxtani ñëwaat woo ki pour lan lool hein ay liir xale boo xam ne xamul dara nga bàyyi ko ci salle ana gardien yi ana ña leen doon assister ana lu am importance laa wax mooy sapeur pompier ñi nga xam dañ leen recruter armée bi ñuy former ay ay ay militaire pare deux an ñu bàyyi la nga dem sa yoon pour lan dañ leen war di recruter leen def ay sapeur pompier day yóbbu ci hôpital leen fa tas nga xam ne sapeur pompier bu nekkee ci biir hôpital toog fa lu fa xew dina xam ne li problème mën nañ ko régler mais amul sapeur koo xam ne da ngay dem recruter sama genre ma ñëw gis saxaar ma daw fil bu lak branchement nga dem wo électricien bo xamné sa mbokk la nga bëgguma lek xaaliss bi nga ñëw fay ko mu ñëw branché baaxul guddi jot mu lak liri dé pour lan liri dé xana man su man sax na jëm sama sama bop parce que man mag la mais lire bu teud nan la mëna sauver bopam ba paré 11 11 liri 11 liri ci dé amul mag bu ci dé lire kessé mo dé fa nekkon xana waru ñoo dé ñom wala ñi dé ñom duñ ay duñ ay nit ñom suñ waxe ñu né droit de l'homme si dëkk droit de l'homme si lii lañ wara lijeenti lijjanti Macky Sall na wax ñun ñi ñun ñoo gënoon dem votel ko voté lañ defoon nak ta voté day amaan nak nañ baay lool xel aduna bi na jéxagul bis buñ ca yégué nak day xam ne ñoom li ñu lañ liggé ta dinañ leen ko fay wa wasalaam waaw lool mom xamna nek na mbir mo xamni lu metti la lu metti la metti ci wa Sénégal yépp waye nak du guleet ci Sénégal ñu xey yéwo li ni mel dem dégg ben hôpital bo xamni nit dee na fa dee boo xam ne amul fu la amul fayda ndax ay ay ay ay liir lañ lañ wax ne ñoom lañ boole mu nekk ay onze fukki liir ak benn ñi yeewu ñu ne liir yooyu dañoo faatu foofu noonu man dama jàpp ni euh, négligence mooy am ci hôpital yi comme ni mu amee fépp parce que femme bi nga xam ne da doon accoucher barki mu Njaay far jaaree fa ñàkk bakkanam loolu dama jàpp ne négligence la réew mi li fi xew dafa ëpp ta man dama dama yaakar ni ki nga xamne ne mooy réew mi dafa jot pour mu wax ak sénégalais yi ndax li xew actuellement ni mo gëna graw li xewon ba muy di wax nan bu bu ben sénégalais di ci ben réew nañ toj aéroport yi bu ben sénégalais génn di sa ta takulo masque bu ben sénégalais génn di dem sa dëkk ndax ndax dañuy tej yoni coronavirus li li xew jamono ji ni mo gëna graw coronavirus pour man yaakaar naa président war na génn wax ak sénégalais yi. waa metti xanaa metti. ñu koy méttit lu torop torop en tant que yaay en tant que jigéen méttitul nañ ko métti na torop torop te fan yi nag moom lii fañ xew si hôpital yi moom doo dégg benn doo dégg ñaar ñaari fan ñett ngeen dégg ni hôpital bi tàkk na loolu moom war nañu gëstu ba xool ba xam lan moo ko waral ndaxte metti na daal doy na waa ñu jigéen ñi ñu ngi koy metti lu torop sax torop torop fi mu nekk nii ku ci ko ku yëg ni dara ngi sa yaram sax da ngay daal di tiit xalaat nii bu ma demee hôpital loolu daal war nañ cee jug wax dëgg neex yàlla war nañ cee jug ñu xool daal li koy indi lan la ñu jëm ko freiner vraiment metti na trop trop trop ñu ngi massawu yaay ji gis naa ko maa ngi koy liir sànq ba léegi soo ba léegi sama xol neexul nag ndax loolu sama yaay li ma li ma li ma kii woon yëpp tey sax dafa dafa dafa loolu ndax ndax métti boobu ma xam nii ni en tant que jigéen nu muy sentir noonu ma xam en tant que yaay man tamit méttalu naa ko trop trop maa ko mi ngi melni ni da kon man suma nekkon ci place am mu metti ma trop ci soba legi nekkuma wax deug neex yalla ndax man tay la kay sogo yek tay ji lay sogo yek affaire bi xamoo sax ban jour la exact mi tay lay sogo a lolu amna ci hôpital ba ndaxte suñu groupe lañ ko dugal mais metti na dal lu ma si mën a wax daal mu met met na trop maa ngi massawu yaay ji seen yaay maa ngi leen di massawu bu baax a baax a baax a baax a baax di ñaan nag au niveau bu fekkee ni euh, mbirum gouvernement la wala lu mu mënti doon ñu jug ci ñu teel cee jug wut ci saafara ndaxte du lii du benn dégguñu ko benn yoon dégguñu ko ñaari yoon mi ngi répété wu di répété wu nañ ñu ci jàppale rek nag ñu xool lan la lu ko causé ñu jëm ko freiné. wa wa wa incendie bi waaw yëg nañ ko ah yëg nañ ko si réseaux sociaux yi waaw du nekk luy métti lu nag quoi parce que loolu moom je pense que moom métti na trop quoi di sigir ndigaale ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñàkk quoi mais nag je pense que ni loolu moom euh, c'est inadmissible parce que lu doy ni hôpital ay lir nekk fa au moins war nañ am ay précautions yoo xamante ni en cas d'incendie wala genre affaire yu mel noonu au moins ñu jël précaution yi nga xamante ni dina mën a évacuer liri yi avant muy jël benn ampleur quoi donc lolo mom franchement maa koy maa koy déplorer quoi franchement lolo mom mais je pense que ni mom il faut il faut ñu xolat il faut ñu xolat bu baax médecin de garde yi wala sage-femme de garde yi nu ñuy quoi parce que lolo mom franchement man j'avais pas compris man au au début sax intox la ko parce que lolo mom wax deug fa yalla mom metti na trop trop trop trop trop te doko sax yaakaaree quoi parce que onze bébés déwondo sur sur le coup donc lolo mom franchement man mom c'est quelque chose lu metti la quoi lu metti la. waaw loolu moom lu ñuy métti la bu ñu sañoon na gaay gën a xoolaat hôpital yi médecin de garde yi sages-femmes yi ni ñuy liggéeyee par rapport ak loolu parce que incendie boo xamante ni tamit xëyul rek tàkk quoi sûrement am na fa mu jaar ba tàkk ba yenn tàkk yi ba mën a rey nit quoi donc loolu moom la amoon lu ñu si wax quoi ñu gën a bàyyi xel rek gën a surveiller waale incha allah. waaw incendie bi de comme ni ko sénégalais yi di ko dundee rek ñu ngi koy méttul lu quoi vraiment waaw te comme li ñu wax rek ñu moom dañuy jaar ci digg bi. ñu dut baaraam li nga xamante ne mooy état bi état bi ñoo war a jël seen responsabilité tu vois parce que tey mënuñu concevoir que état bi tey jël ay milliards di investir ay stade ay yoo xamante ne dañ koy tëj amul benn njëriñ sénégalais yi xam nga tey ñu jël ni nga xamante ne mooy hôpital yi ñu leen di négliger xam nga tu vois ni tey ay bakkan yu dee xam nga ay liir ñoo xamante ne mënuñu wax nu ñu sauver seen bopp xam nga loolu dafa metti quoi tu donc lu ñu mën a wax daal mooy tey état bi war nañ xool doxal ni dem te lii bu dee dans un état de droit tey euh, président beeg ministre beeg directeur général de hôpital bi ñoom ñëpp dañoo war a démissionner parce que bakkan kenn mënu ko mënuñu ko delloosi te ñooñu seen maire seen yaay xam kenn xamul lu ñuy yëg comprendre nga parce que tey man dama koy xool sama bopp rek bu newoon tey sama doom xam nga tey ëmb rek dafa metti nga ëmb neuf mois xam nga tey nga am doom négligence ba xale bi faatu ñi xam nga loolu dafa metti tu vois donc li ñuy wax daal mooy tey ni état bi war nañ gën a xool ni ñuy doxalee tey ñuy milliards yi ñuy maye di koy yàq di ko séddale di ko def ci ay affaire yu caaxaan dañ ko def dañ ko jël ñu fajee ko nit ñi parce que santé n'a pas de prix tu vois donc man je vois que ni affaire yi daal métti na trop. waaw li ma ci xalaat mooy li si ñëpp xalaat parce que boo xoolee sax lu lu doy waar la mais aussi ni mu war a mel ci wàllu. coow melu ko xamul tax mbax dañu miss jafe-jafe manam dé dé la miss dé wando gi nak peut-être mo indi ciow lu reuy li mais semaine bi yëpp ay dé nga am ay ak ay lu nek wéru wee passé dé amone na ci maternité jamono yee passé amone na encore feulé sa Linguère tay amana na encore ci ci ci ci ci Tivaouane te toujours négligence lay nek pour man fi problème bi dëggantaan jay nek la ñu loolu mooy sama xalaat dama dañoo gul problème bi te xam nga fan la problème bi nekk mooy recrutement bi nga xamante ni am ci hôpitaux yi te ñu recruter xamuñu dara dañ leen recruter sur la base de y'a ma campagne y'a ma téewoon yaa ma téewaloon drapeau fii yaa ma dégg wala sa yaay ñëwoon a toog sa mbootaay ga keroog ba ñuy def nangam nangam loolu moo tax suñuy doom ñun di sa dee beneen bi ma ci mën a ajouter mooy il faut ñu comprendre ni ñetti problème yi te laajoo ma benn bi parce que problème hôpital nga wax problème santé la li ma njëkk a wax sànq laa ciy dolliwaat mooy sécurité bii ak grève bii di waat jëm ci wàllu éducation temps et transporteurs yi la woon ak di santé diglu baax li ma lay wax nii du fi gaaw a jóge ndax seeni bébé du lakk Europe la ñuy juddoo seeni ndoom duñu leen agressé ci mbedd mi ndax am nañ sécurité ba sa war suñu xaas la na yor éducation duñ ci gaaw a jóg ndax seeni ndoom duñ fi jàngee léegi ñetti problème yi ma la wax du gaaw a saafarawu Sénégal fii ndax yaa ngi dégg noonu wax ni parce que ministère yi ci aju seen doom du lakk duñ leen agressé ci mbedd tey itam seen doom jànge wuñ fi yi nga xamante ni nag peut-être ay wàllu xat laa yooyu ñëpp a koy bokk nooy moo tax dëkk commencé naa set mais lépp loo xam ne aju na ci lu public jëm ci yi ma la limal noonu du fi jóge mukk voilà boo demee ci hôpitaux yi boo demoon fii ñu ngi 26 boo jàddoon ni dem ci hôpital bi de peut-être nga dem fekk fa ki war a assister nit ñi di Sénabak di WhatsApp ak yu kenn xamul priorité lañu fàtte. li ngay li ngay liggéey day fekk nga bëgg ko am amuram ñu formé la ci nga mën ko nga mérité ko dem tok fa mais bu fekkente ne da ngaa sumé bay bëgg dé dem ba xamatu fo jëm ñu la santé santé man nga jël kii nga dem dugg ci ben école ñu formé la 3 mois 4 mois xamuñ sax yan noon nga fa jëlé ya man neex amna sama sama jarbaat bu def bu def santé jëlal mako nga jël yobu ci hôpital bi ni lay mujjé parce que hôpital bi gëna a mag ci waawoon lañ ni fa la loolu xewee nan la ben bâtiment bu ay xalé yu mënul dara nek ñu ne installé nañ ko état moko yor bâtiment public la té amul directeur de fumée loolu lay laaj bâtiment état ci aduna bu amul directeur de fumée manam ben saxar ni rek alarme yu yuuxu loolu mooy question mooy njëkk a man Macky Sall la koy poser loolu nan la mëna a est-ce que sax amna extincteur man bu mëna fay briqué amna fa lay laaj benen bu moy benen question la bu ñak fay rek bu terre à terre peut-être ci 11 bébés bu dee onze ñoo fa nekkoon onze yëpp dee ça veut dire kon kenn nekk fóon question bi mooy nan nga mën a téye ay bebe yoo xamante ni kenn mënu cay wax kenn mënu sa bopp dara moo leen fa dajale te amul benn assistance moo amul kenn ko fa nekk ba mën a sauver benn bébé donc loolu question la boo xamante nii il faut ñu élucider ko directeur hôpital bi ñu si ay ay leeral damaa jëlee nag ay ministère de la santé ak yooyu ñooñu moom ay ay bañ tuddoo ba léegi échec la ñu xam waaw xam naa ne du mës a démissionné jaaxal la ñu xam léegi nag Sénégal boo kon alalu dekk bi ñu def ko ci ay cimetière ndax nit ñi ci faatu lañu nekk kon alalu dekk ji nañ ko def ci ay cimetière commencé def ci ay fleur yoy non te ñëpp mun xëyee wàcc kaamel ñaan yalla ñi faatu parce que faatu guñ ci problème faatu jam hôpital nangam nangam comme légui ñu investir ci cimetière yi man loolu la jaxalat